salaamaaleykum sama gars yi mbaa yeewu ngeen ci jàmm barikalla waaw naka te ñi yor secteur extractif yi maanaam pétrole gaz zircon fer cuivre or manganèse at mu jot dinañ yoreel Sénégal ci lempo lu war a tolloo quatre vingt quinze milliards de francs CFA waa mbalit mi nee nañ seen dix huit milliards yi ñu leen yoreel ay at na trésor def différence génneel leen xaalis wala mbalit mi foofu lañ koy wacc wàllu yoon Samuel saar dañ ko def garde wi ay mbokkam sax mënuñu koo teg bët mettit lu nañ lu ni mel euh, Adama Gaye taskatu xibaar ba wàcc nañ ko mu dellu ci njabootam waaye aljuma dinañ ko atte Moustapha Diakhaté moom it euh, jàllale nañ ko rëbës moom jeudi lañ koy atte waaw Thierno Alassane Sall daal ne boo gisee haute cour de justice ni mu taxawee ci mbiru euh, Azer bi nga xam ne kon problème bi mu doon wax skandaal bi dëgg la moom loolu la gëm waaw nees ko mën a tuddeeti euh, kon foofu ci Koungheul douane dafa jàpp lu war a tolloog deux cent trente cinq gramme de cocaïne pure war a tolloo quatre-vingt-dix-huit milliards ci xaalis Sénégal bay la la boobu fu mu jëm ak ku koy jëfandikoo yàlla bu nekk réew mi rek waaw euh, nees ko mën a waxatee fi mu nekk nii diggante président Macky Sall ak Amadou Ba kan mooy vraiment chef de l'opposition ñu waxtaanee ko walay ndeysaan amees na it ñoo xamante ne nii ñu ngay am lu leen naqari ndax hôpital Albert waaye xale ya ba tey ñu ngi am ay jafe-jafe ku leen faj ndax ñay gerew ñu ngi wéy di gerew ba léegi. Mm, assemblée nationale boo sàgganul Pastef dina fa defar razzia ndax poste yu ñu fay joxe yëpp comme ñoo fa nekk 130 boo sàgganul danañ fa baat lépp rek waa ji dafa rey xale bu jigéen bi nangu téléphone ba pare suul ko ci benn tool kii moo nekk kii moo sadik liggéeyub euh, yee salaat jumaay Touba waa Touba ci kanam joxe nañ 114 millions de francs fa moom kay loolu dafa yéem ndax Aliou Cissé mën naa dellusiwaat ah Augustin Senghor de nee na buñ sañoon moom du dem Pape Thiaw thank you